ayca nañ delluwaat Nioro ma xool fa ki nga xam ne mooy dërëm ah, ci monsieur ak madam Ba ak waa ñoro yëpp ñu yi ambiance et eh, dërëm lu waa Nioro wax. blogueur yi madame Ba yaay tamit di kenn ci ñun uuf ñu ca tele ba tax dara ñaawul man su ma màggee ni moom laa bëgg a mel nuyu naa la madame Ba. xëy naa la dërëm. Euh, tey bi suba ba léegi ñu ngi lay gis nga jàppale sa jëkkër jàppale ñi bëgg sa jëkkër waa ñoor yëpp génn ban yëg-yëg nga am ak ban message ngay lancé adduna bi lay seetaan. xanaa kontaan ñu ngi leen di gërëm yéen waa TFM ci seen teewaay ñooro ñii nuyu waa ñooro yëpp di leen sant ndax ñoom ñoo ñu yombalal lépp. ñoom ñoo ñu bëgg ñun ñu bëgg leen. Euh, tey nga woote jigéen ñi Nioro yëpp génn ban yëgee nga wax ak yan maa nga leen di jox. xanaa kontaan di remercier ñëpp waa Nioro yëpp góor jigéen mag ndaw ñëpp remercier particulièrement monsieur Ba moo xam ne mooy sama sëriñ. Euh, nit ku baax la ku bëgg a Nioro la. déggal loolu ci ñooro lay dox avancement Nioro. waa déggal loolu. di ko ñaanal lépp lu mu ci séddu ci li muy def ci ñooro yàlla na ko ko yàlla defal li remercier tonton Ibou waaw sama yaay moo événement bi moom yàqu si dara waaw sama yaay moo jonge Ba nga xam ni yàqu ci dara waaye sama yaay a jonge mooy suñu papa lu ñu jóg mu jàpp ci fu ñu jóg mu ak ñun di remercier famille Ba famille Wilane waa ñooro yëpp daal su ma limee dinaa juum toutes les autorités nga xam ne yombalal nañu yëpp comité d'organisation bi nga xam ne c'est des jeunes qui sont derrière mon mari di ko jàppale guddeeg bëccëg di ci daw li moom li ñi ngi ciy daj sax moom ci boppam du ko ci daj maa ngi leen di gërëm di leen sant ñoom ñëpp di gërëm sama famille samay doom samay frère yéen nag waa TFM dama leen di beral gërëm parce que yéen waxuma deuxième famille mais yéenay première famille wax ji rafet na Euh, tey ñu ñëw fi nga xamante ni mooy Nioro ngeen def fi organisation bu mucc ayib àdduna yëpp di ko wax euh, ban yéeg nga am sa xol ak ban message ngay lancé ñi nga xamante ni ñooy doomu ñooro yi nga xamante ni ñu ci biti non vraiment c'est pour la première fois maa ngi ñëw Nioro sur invitation de mon ami Momad Ba accompagné de mon ami Mamadou mais Nioro est vraiment ak accueil bi nit ñi ak ville bi man lii ma fi gis tey foogoon naa ni Dakar rek la mais tey jii Nioro wan nañ vraiment Dakar ëppalewu ko dara vraiment may remercier waa TFM di la remercier yow di aussi Madame Ba mi nga xam ne bi ñu fi egsi ba léegi elle nous a réservé un accueil avec l'ensemble des des personnalités qui sont à vraiment suñu xool sedd na tey lan moo say mooy say tànk. waaw euh, di kontaan rek di fi ñëw tey euh, di soutenir sama xarit sama mag sama DG du moins DG Aprosi euh, monsieur Mohamed Mohamed Ba boo xam ne nii oyofaayam te en tant directeur général. disponibilité am ak management am moo ma séduire ba ma gën ko ñeme lu ma ko xamee yàggul mais lu ma gis ci moom may na ma espoir que lii lu ma bëgg gis ci Sénégal lu ma bëgg a gis ci ay responsable politique ci ay responsable d'entreprise nationale wala membre di gouvernement yu ñu mën mel lu ñu war a mel en ce qui concerne comportement ak seen relation ak seen nit ak seen relation ak seen localité ak seen action de développement am naa yaakaar ni gis naa ko ci moom loolu moo tax ma ñeme ko ma décider jël sama oto jógee Dakar bu ñëw ba fii pour mu wane ko ni maa ngi lay soutenir maa ngi ànd ak yow di la pousse te incha allah yëpp dina baax. waay père waaw waaw waaw waaw waaw waaw xool la père daaneel waaw waaw mooy sama yoon nekkul ji ay yëfi xale la je m'en fous xool la père daaneel waaw waaw waaw waaw eh. enjoy rek enjoy no stress no stress waaye père yàlla nañ fi yàgg waaye te wér enjoy rek père enjoyal bu la kenn yàqal